jërë ngeen jëf mbokk internet yi suñu bés la saa su nekk nañu koy defee ah, moom jiital Pastef Ousmane Sonko ah, gannaaw démb ba ñu ko gisee foofee ca parcelle mu dajale fa mbooloo mu takkoo takku ni ki tey jii nag daal di nañu koy gis rek foofee ca Colobane moom Ousmane Sonko mbooloo mu takkoo takku ah, daal di ko fay fekk teeru ko tatagal ko daal di koy sargal moom jiital Pastef lile mu ànd ak ñoom foofee ca Colobane mu nekk image yoo xamante ni jamono ji ñëpp a ngi koy partagé waaye nag ci noonu rek. njiital réew mi moom itam xam ngeen ni ki tey jii rek demoon na foofee ca Thiès ngir rek amal tout népp économique moom nag itam gis nañu rek mbooloo mu baree bari moo xamante ni itam ah daal di nañuy topp rek ca gannaawam moom président Macky Sall mu mel ne rek kon jamono ji Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñoom ñaar ña nga koy joxante gannaaw Ousmane Sonko Colobane moom njiital réew mi kat daal daal di nay wane boppam rek foofee ca Thiès ni ki tey jii. Sunubuzz TV HD ci toute l'actualité